wuñ ko ak dara. gis nga Cheikhul Khadim. Mhm. dafa amoon benn lal ci biir néegam. Mhm. boo xam ni sëriñ Touba daf daan lallu lal bi ñu lalal ko ko ba mu rafet. ba boo doonee gan dangay jàpp ni Cheikhul Khadim ci lal bii lay fanaan. ndekete. Alaaji Pape Serigne Touba lu mu am ci parfo sikki. Mhm. wala misk. wala huut. parfum oud bu ko cheikhul xadim masaana am lu cher da koy sotti ci lal bi ba mu tooy ba boo xamul da ngay jàpp ni cheikhul xadim mooy tëdd ci lal bi ndekete la muy sotti lépp doyewu ko dara uh-huh. lu dul ndekete téere yàlla bii di alquranul karim la fay teg uh-huh. li muy way moom cheikhul xadim daf caa boole way alquran uh-huh. yëkkati kaamil bi nii moom cheikhul xadim di ko way naan ko yaa kitaabal karimi anta habibi wa xalili yow téere yàlla bu tedd bi yaay sama xarit Omar Pène way na ko yaay sama soppe aw ma ku dul yow yaay sama référence man ahmadul xadim li coow li bari bari yëpp man yow la am dégg maa ko njëkk a dégg li ma lay wax rek woykat yeeg seen njëriñ Omar yaa kitaabal karimi anta habibi anta habibi karimi wallaay Omar Pène woy na ko ak super jamono doo ma gëm sax <laughs> ñoom dañuy jàngale <laughs> parce que man njëkkuma ko dégg ci borom xam-xam. wala ci nitu diine ci waykat laa ko njëkkee dégg li ngay wax nii. moo ko bind. wallaahi. dafa yëkkati kaamil bi di ko tagg di ko way. Mhm. nan ko yaa kitaabal karimi anta habibi wa xalili mhm. yow téere yàlla bi. man Cheikhul Khadim maa ngi lay seedeel ni awma benn xarit ci kaw suuf bu dul alquran. Mhm. aw ma benn soppe ci kaw suuf man cheikhul xadim budul alquranul karim alaaji pap taf ko ci dënnam mag ñi dañu xamoon njëriñu alquran alaaji pap mm-hmm. xam nga lu sa maam Maodo wax inna alqurana mm-hmm. huwa almizanu mm-hmm. taarifu minhu ma xawayta min al ashwaaqi wa sadami nee na bu yowmal qiyaamee bu nu dekkee ëllëg ci kanamu yàlla nit ku nekk fa la alquran tolloon ak lala alquran jaraloon ci àddina ci la ñuy xamee sa cofeel ci yonent bi ak li nga làq ci ay ngëneel alaaji pap yàlla nañu alquran jaral moo tax alquran du lu tuuti afdalu maa yutla wa maa yuxaalu mhm. wa xayru maa yunfaqu fiihi lmaalu mhm. xiraatu bi jàng na jàng na alquran ci ci ñaata ci ñaata temps alaaji Pape kooku yàlla da ko ni yaay professeur bu mag bi kon suñu waram da sol wala da koo jàng ci jibril rek inna sa nulqi alayka xawlan shaqilan la ko jibril wax ah, donc ay étape étape par étape ah, étape par étape ba tey da ngay confirmer li nga wax sànq ci jur bu la laaj sama doom ñaata temps la fay def affaire yi étape par étape ah, ok xam nga pap alquran ji day wàcce par occasion maanaam mbir day xew yàlla war a intor introduire ca mbir ma yónni jibril wax kook yonent bi ñu capté loolu dugal ci alquran ah. benn événement jot par exemple bi jullit ñi di naan sàngara booba sàngara araamagul. Ah, am na ay temps araamul woon. sàngara yéex naa araam. ah bon. Mhm. ñoom vingt huit keek yooyu. dernière minute lañ ko tere. si <laughs> ah nit ñi dañ daan mandi rek. di tërëf. dañ daan dañ daan suus <laughs> kon. suus daga noon na. oh temps boobu neexoon na nag kon. dañ daan mandi. ah àdduna neexatul. <laughs> suus dagan mandi dagan. teetan. ñu bàyyi ba dernière minute ñu dagg ñu ñu enlever daga def ko wa daganatan mais Pape li nu njëkk a tere avant ñuy tere sàngara définitivement dañoo njëkk a tere ni bu leen ko naanati di dem jàkka ja ah. loolu mooy tere bu njëkk bi ah. gaa yi di naan buñ xëyee dix heures onze heures naan ci sàngara si mm-hmm. añ midi déseeru ci sàngara si mm-hmm. bu tisbaar jege see nag ñu pause kenn du naan ah dem julli ji ñëwaat. dem temps neexoon na nag kon oh àdduna neexatul. yàlla yónni Jibril ne ko. Uh-huh. waxal yonent bi mu wax gaa ñi ni leen hmm. laa taqrabu salaata wa antum sukaara maaxul bàyyi leen bu leen naanati sàngara te fekk waxtu julli jege si ngeen war a mandi war a julli ji dëgg la dem ci jàkka ji di dërëf dëgg la de <laughs> mandi war a tari faatiha def vingt-deux tabat tóoru ko yàlla nañ ci àll musal. <laughs> léegi nag bi yàlla xamee ni. <laughs> Uh-huh. tere na sàngara. Uh, subhanallah ci première cause bu leen màndi di julli ji. mu gis ne jullit ñi léegi. Uh-huh. dañuy profité di naan lu bare bare bare bari avant waxtu julli jot. <laughs> kon yàgg nañ ci àddina. ndeke àdduna yàgg naa neex. boo daan jël deux nga ni naa profité. jël ay bouteilles <laughs> laal cinq verres. wàcce bouteille quoi. wàcce bouteille. léegi nag Pape yàlla jékki-jékki nag yónniwaat Jibril ni ko boo demee nee leen. Uh-huh. léegi nag tere bi. nekk na tere boo xam ni. Uh-huh. tere bu général général la. ok ok innamal xamru. Uh-huh. parce que yii. ñoom la yàlla teree ndoo ci même jamono. ci benn ci benn digle. ci la yàlla teree ndoo yëpp. mi ngi mel ni ni ngay jékki-jékki rek gis benn article bu génn ñu ne suba tere nañ nàngam tere nañ nangam tere nañ nangam ci benn article alaaji pap ci la yàlla tere sàngara ci la yàlla tere carte xaalis ah yëpp dañ ko tere xam nga carte xaalis pap dafa xaraam carte xaalis mu mel ni nag dañoo laaj yenent bi ni ko yàlla mi ngi ñu permettre ñuy naan sàngara mhm. mu ne ñu bu leen ko naanati ba pare di dem ca jàkka ja ñu ne d'accord. waaw quand même ñu continuer di naan mu jékki tere terewaat ñu ko tere boo xam ni définitif la. Mm-hmm. mais pour lan. Mm-hmm. yàlla yónniwaat jibril ne ko neel yonent bi na tontu gaa yi ne leen wax ni mm-hmm. suñu borom nee na innama yuridu sheytaanu an yuqia baynakum al adaawata wal bagdaa fi l xamri wal maysiri yàlla nee na dafa am conséquence yu naan sàngara di def ci wér gu yaram sax bi ci jiitu mooy an yuqia baynakumul adaawata day indi mbañeel ci seen biir nit xool moroomam wax ko lu ñaaw xeex ak moom man di ma giif mu naan am na màndikat yu jooyoo am na ci groupe màndikat yoo xam ne xoola dañuy jooyoo ndeysaan gërëmante jooy jooy jooy yu metti ñii di xeex ñii di jooy sàngara baaxul ah yàlla yi tere ko. <laughs> yàlla ni leen li tax ma tere leen sàngara mooy day indi mbañeel ci seen diggante. dafay tax ngeen bañante. Mm-hmm. dafay tax ngeen di def lu ngeen di réccu. Mm-hmm. da màndi. Mm-hmm. saaga nit ñi. màndi ma giif. indi leen ay coow. nga xëy suba dajeeg nit ñi. oustaz sàngara baaxul de. <laughs> am na ci kër yoo xamante ni ay xale mandikatan ca sonolu la jël huit huit huit la kër gi ba pare la jël waa koñ bi te sàngara yi gën a yomba dàq mandilaate ku la ko wax danga ko mos dama loo xamul mënoo ci wax cas deux ah, am na ñuy def ci cas six cent yii am na ñuy jar cent cinquante <laughs> léegi nag yàlla ni innama yuridu shaytaanu allahu akbar an yuqia baynakum al adawata wal bagda fi l xamri wal maysiri maanaam damay bañ ngeen màndi dëgg la mbañeel am ci seen diggante am na fan yële bu ñu tuddee woon Jakarta defe naa boobu xeex ak nit xale yi jam ko paaka wallaahi màndi ma rees parce que dara du la saf ñu xëy ñëw sa kër nga sëgg wallaay fekk rees na am kersa am gàcce ñu ne la nga wax démb parti boobu xam nga nu mu tudd saaga ba mooy laxal koo bëgg parti boobu laxal la tudd laxal nga xam ne sa xel di sa xel may ñëwaat ngay normal di commencer di réccu te fekk réccu dafay wees pare secret bi yàlla def ci màndi alaaji Pape soo màndee lépp looy xool day yëngatu dara du dangaa am sa màndi dëgg la ngay wëndeelu di def maanaam ah? lépp looy xool. day yëngatu dem côté bii dem côté bii moo waral ngay jékki-jékki di jàpp dara. ay oustaz oustaz Modou jàpp dara. astafurla. fekk nekku fa. dëgg la. Mm. li tax li xeetoo ci ay màndi ay dorogewu ay suus beneen jamono la lay yóbbu dëgg la pap mbaa xam nga ni boo nekkee ci tàngaay boo màndee wala nga suus hiver ngay nekk <coughs> ah da ngay jékki sol pull-over wala costume da ngay sol pull ak manteau sangu ci mbàjj mi di xulle ay bët Samba Samba ngir yàlla te ñoo dagg émission bi. yow danga mel ni kuy suusa ah. doo bokk ak nit jamono. dëgg la de. giis giis taj. mën ngaa sol quarante jeget. bokkatu. gin gin ba pare da ngay bari wax. noo xamee lii yow. doo selaw. mais yow xaaral ngay def. pourtant nag tey. ba bi tàkkusaan jotee dama ne woon damay porté malaat duma ñëw mais ma xool xaw ma affaire lu mu mënuloo rek ma ne xaaral ma liggéey si yow safurlaa sama àq da lay lépp looy xool ci àddina ah. ñaar lay doon. astafurlaa. te say wax du jeex. Ah. dangay mel ne ku tëdd ci lalu hôpital bokkatu sàngu. Ah. doo fa nekk. astafurlaa astafurlaa. Alaaji Pape léegi nag noonu muy jaxasee sa xel mi nag Alaaji Pape. Mm-hmm. te tubaab bi la ko jox. wala ki ko yi pour yóbbu la ci beneen monde. sàngara ak tux ak suus ñooyam mos lay bañ. mos moom mi ko sàkk sax euh, au delà de suñu borom mi ko tere dafa baaxul ci wérgu yaram. mais baaxul ci wérgu yaram. wallaahi yàlla boo seetloo lépp lu mu tere. bi jamono doxee scientifique yi dañu génne ni loolu baaxul sax ci wérgu yaram maanaam du wax du sax diine te suñu borom ci diine la ko teg à l'époque tere yu bëri te yi mu tere yëpp. ku ca dugg rek am problème mu santé. gis nga consé nga conséquence bi muy def ci yow. Mhm. da lay perte loo sa cerveau day dem. dëgg la de. alaaji pap boo mandee. Mhm. wala nga suus. Mhm. da ngay gis koo xam ni avant muy màndi yére normal la sol. mu suus li àbbu jege. xeexoo. léegi koo gis ci otom mi nga pilivert. parce que day liw en tout moment mën naa liw. nit ñi ne ci tàngaay taal ventilateur. nga naan fay leen. di wax waxi doof te doo selaw. donc du coup. yàlla yàlla ni la teel koo tere. innama yuridu seytaanu an yuqia baynakum al adaawata hmm. seytaane day jaxasoo ci seen biir bu ngeen màndee du ngeen ànd ak seen sago hmm. kon bàyyi leen ko fa hal antum muntahun ala kulli bàyyi leen sàngara ala kulli léegi nag sàngara soosu nag alaaji Pape bi ko yàllay tere hmm. moo kart xaalis la teree ndoo ci même instant jullit ñi daan ko naan yàlla xëy xëy tere ko kon nga gis ni alaaji pap alxuraan dafay méngoo ak circonstance yi xew njaaloo am alxuraan wàcc yàlla ni ku njaaloo te mosoo am jëkkër mosoo am jabar téeméeri yar ewe eh <laughs> boobu dafa garaaw ku mas am jëkkër sànni xeer ba mu dee mooy àtte bi ku xas gor juróom ñett fukki yar soixante di yar lañ la war a dóor atte yi di ñëw atte yi di ñëw atte di ñëw ba Seyduna Muhammad génn àddina Aboubacrine toog ci xilaafa gi Aboubacrine toog ba génn àddina Umar ibn Xattaab toog Ousmane toog ba génn àddina ci xi ci bi muy waaj génn àddina ci génnu xilaafa gi maanaam bi muy waaj a faatu rek ci dernière minute am Seydina Ousmane ni xam ngeen lu xew nañ dajale alquran ji ñu def ko ci benn téere mool mhm. ko mhm. ba duutu riir ah c'est parce que boobu defaguñ ko woon kenn dajaleegu ko d'accord d'accord ci jamonoy xilaafa Seydina Ousmane la ñuy doog a dajale alquran mais ci ban jamono la ñu koy sol yaram bi tàng muy tàng ba dégg naa fu mu toog sax xeer bi xeer bi mën naa toj moom yonent bi waaw ci ñu koy ci sol bi ñu koy sol bi ñu ko doon sol mooy ba mu jógee ca xuntuma mhm. dafa tàggu Sayyidatuna Xadija génn kër gi dem ca ma dajeeg Jibril jibril mboq ko mu sonn mësul gis malaaka keroog la seyduna muhammad tiit yonent bi mooy waaj ko tàng <laughs> alaaji pap njool màkka départ ba agsi ci këram te yëgul ni mi ngi daw hmm? keroog la fëgg buntu këram façon fëggin boo xam ne mësu koo fëgg ndax moo gën a teey ñépp moom yonent bi wallaahi keroog dafa fëgg façon fëggin boo xam ni bi ko sayyidatuna Xadiija déggee hmm. dañu jàmm xewul ndax ki ma xam daawul fëggee nii waaye keroog ba mu ubbilee yontu yàlla muhammad jàkkaarlook moom mhm. seydina muhammad tiit alaaji pap aj ay bëtam mhm. xam nga lu ko doon wax mhm. zammilu nii sàng ma damaa liw waaw damaa liw maa ngi liw waaw damaa feebar ay waay xadija dimbali ma sàng ma maa ngi bëgg a dee zammilu nii zammilu nii xadija xadija ni ko neel tekk xool ko ci ay bët ni ko xaw ma lu xew waaye billaahi lam yuxzika allahu fi daareeni laa tëkki ay waay jigéen ju